asalaamaaleykum dal leen ak jàmm groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dafa fas yéene taxawu premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ne ay fan a ngi ñi nga xam ne ñoo fa rek nguuru président Macky Sall lenn la ñuy xaar ci moom mooy mu fexe ba sàmmonteeg ab juróom-ñeent fukki fan yi nga xam ne la am ngir amal déclaration de politique générale démb seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi ki ñu fal yees si boobule groupe parlementaire di Ayib Daffé dafa xam xamle nag Ousmane Sonko du lenn moo ko tënk ndax sax daa mënul nekk li ko waral mooy bokkul ci charte bi assemblée nationale di seen réglement intérieur ayib dafee di xamle ni règlement intérieur boobu nga xam ne dañu ko joxoon parlementaire yi bokk ci fukk ak ñeenteelu législature bi nañ leen di dalal ci fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ci atum 2022 daf caa fàtte boole coppite yi nga xam ne moom lañ indi woon ci loi organique bu atum 2019 mu jëm ci niilal poste premier ministre Ayib Daffé ba tey ngir xamle li tax ba Ousmane Sonko dara tënku ko mur mu amal boobu boobule déclaration de politique générale muy fàttali it ni ci atum 2021 nguur gi fi nekkoon dañoo wote woon ab loi boo xam ne dañoo delloo siwaat poste premier ministre waaye nag ci beneen wàll wa wotewuñu lenn loo xam ne ci biir réglement intérieur bi mooy jëmmalaat boobule poste moo tax it premier ministre bokkul te it teewul benn yoon ci réglement intérieur bu assemblée nationale amul it lenn loo xam ne dafa jëm ci amal boobu boobule déclaration de politique générale ak it wàllu motion de censure dañuy des ak Ayib Daffé ndax kàddu yi mu yëkkati it waaye yor-yor bi yeggee nañu ko muy ñuy wax dëgg-dëgg lan moo tax ba premier ministre Ousmane Sonko bi le politique générale mënu ko amal yor-yor bi jox ci kàddu Moussa Diakhaté mu jiite commission loi ci assemblée nationale mu ne premier ministre amul benn app boo xam ne na ko bu ñu sukkandikoo ci Moussa na li jàmp fi mu toll nii mooy ñu niilal assemblée nationale bi dañuy des si mbir mi ak waa bés bi le jour ñu ne yeewi ñëw na wallu si bu baax a baax Ousmane Sonko Abbas Fall bi bokk ci boobu le groupe parlementaire di xamal suñu naataangoo yi ne danañu yeggee mbir mi premier ministre ndax moom rek moo ci am ab dogal ak lu mun a am Cheikh Oumar Sy fare ci ku jege nag di xamle ne ak déclaration de politique générale lu war la balaa ñuy amal ñu duppee ak juróom-ñeent ci weeru juin ñu des ak jàkkaarloo bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko war a jàkkaarloo ci assemblée national ak député yi ak le quotidien ñu ne DPG bi waaye wi askan wi ànduñ ci benn yoon mënuñ ko amal it ci jamono ji muy fàttali ne déclaration de politique générale boobu mu ngi si ndeyu charte réew mi waaye nag nekkul benn yoon ci charte yi nga xam ne moo tënk assemblée national dafa am ay coppite yu jaaral ci yoon yoo xam ne dañ ko caa indi boole ci it loo xam ne bokku ca woon Yewwi da Wi ñoom dañoo xañ Ousmane Sonko mu amal bi la déclaration de politique générale nga xam ne dañu ko doon xaar ci ndorteelu weeru suleet maanaam ñetti weer ginnaaw gi ñu tabbee Ousmane Sonko mu nekk premier ministre waa laas yi nga xamal ne nag tigaatul tànk benn yoon ci place Soweto ginnaaw gi ñu yëkkatee malaanu kiiraayam jëmale ci mbirub Sweet Beauté loolu amoon ci atum 2021 te it sawarul benn yoon ñëw foofule ci assemblée nationale jàkkaarloog député yi moo tax it waa ci ab Ousmane Sonko tiit ci mbir lee ak lu mën a am duñ ko amal ci app ba war bu ñu sukkandikoo ci réew mi quotidien waa foo di ñu xamal ne atum mille ba tey ji juróom ci fukki premier ministre yi nga xam ne ñoo amal seen déclaration de politique générale ni ñu koy amal app juróom-ñeent fukki fan yi na mu ñuy fàttali nii DPG bi nag lu am solo la ndax day tax ñi fare ci nguur gi ak ñi fare ci assemblée nationale am ab jàkkaarloo ngir waxtaani ci dëgg-dëgg fu ñu bëgg a yóbbu réew mi. Aji Mergane Kanouté bu Benno Bokk Yaakaar di xamal waa l'info ni premier ministre Ousmane Sonko naataangoom la woon ci assemblée nationale it liggéey gu am solo la amal ku am fit la te ragalul benn yoon jàkkaarloo ak moo tax Aji Mergane Kanouté bu Benno Bokk Yaakaar di samp bi le laaj lan moo tax ba coow li bëri. jëmale ci déclaration de politique générale boobule. ci jamono jooju nag ci conseil des ministres njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay dafa yeggee gouvernement bi gis-gisam jëmale ci wàllu budget. ak kii programme bu yees bi nga xam ne day tax ba ñu gën a ñoŋalaat usine ci suñu réew mu yeggee leen yan pexe la lal ngir mébétam boobu lee mën a antu mbir mi it soxal waa laas ñiy dellu si si projet de loi bi nga xam ne nag dafa jëm ci soppi xarkanamu usine ci suñu réew xam seen lim ci dëgg ak it càmbar bu baax a baax zone économique spéciale yi ngir ñu moom suñu bopp ci wàllu koom-koom waa Sud Quotidien yi njiitu réew mi xamal na gouvernement bi ne loolu lu ko ñor la dañuy des ci gouvernement boobule ak ki nga xam ne moom lañ dénk wàllu intégration africaine ak wàllu biti réew di Yacine Fall mu siwal ab bataaxal démb del si si manifester bi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci kanamu ambassade suñu réew ci Burkina Faso muy leeral nii du benn yàqu-yàqu boo xam ne nag nemmeeku nañu ko ginnaaw toogaanu sikkumu bi nga xam ne nag kuréel bi ëmb association yi nga xam ne daal ñu ngi leen duppee veille citoyenne bu Burkina Faso doon amal ngir jébbal ambassadeur bi ab bataaxal boo xam ne dañ ci yégge seen jooyu xool ñu bugg ko yeggee ki nga xam ne moo nekk ci bopp Amnesty International bi fare ci Burkina moo fës ci leeral yi nga xam ne moom la Yacine Fall doon indi moo tax la Soleil ne Yacine Fall wàcc na tension bi bu baax a baax mu it gis-gis bés bi le jour le quotidien nii bataaxalam bi de tax na ba ñu wis ndox mu sedd ci mbir mi ñu jàll nag ci mbir mi nga xam ne nag ëttu yéenekaay yëpp yi ñu xëyandool tey génn nañu ko ci médaille door bi nga xam ne moom la doomi réew mi di Sali Sarr am fële ci Cameroun ci wàllu athlétisme foofule moom lañ bu démb mu nekk champion d'Afrique bu triple saut Sali Sarr moo tax ba suñu réew am ñetteelu médaille mooy buuru jigéen jëmale ci triple saut bi bu ñu sukkandikoo ci waa SAD ñu des waa SAD mu ñuy xamal lu tàng jër yi nga xam ne mooy xaar waa Allemagne France Espagne ak Portugal jëmale ci njeexital euro 2024 bi lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool yéen doog jàmm Bonjour. Le groupe parlementaire Yewi Askanui s'érige en bouclier autour du Premier ministre Ousmane Sonko qui, depuis quelque temps, est sous pression des partisans de l'ancien régime du président Macky Sall du délai pour sa déclaration de politique générale. S'exprimant lors d'un point de presse hier mercredi, Aïb Dafé, le nouveau président du groupe parlementaire Yewi Askanui, évoquant l'omission de certaines notions dans le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que l'audition du Premier ministre Ousmane Sonko est actuellement impossible, renseigne le quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien. D'après Aïb le règlement intérieur distribué aux parlementaires de la 14e législature lors de leur installation le 12 septembre 2022 a omis des modifications apportées par la loi organique de 2019, notamment celle concernant la suppression du poste de Premier ministre. Et en 2021, l'ancien régime avait voté une loi pour restaurer le poste de Premier ministre. Mais en parallèle, aucune autre loi organique n'a été votée pour restaurer ce poste dont le règlement intérieur, ce qui fait que le Premier ministre est absent. Il n'existe pas dans notre règlement intérieur et il n'existe pas non plus une disposition dans le règlement qui permet de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration de politique générale, d'une motion de censure et d'une question de confiance, a souligné le président du groupe parlementaire Yéwi Askanui, Aïb Dafé Yor Yorbi, relevant les falsifications du règlement intérieur à Aïb Dafé, qui nous dit pourquoi le Premier ministre ne peut pas faire sa déclaration de politique générale. Et selon Moussa Diakhaté, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le Premier ministre n'est pas enfermé dans un délai. Et Yor Yorbi de nous faire part de ce commentaire de Moussa Fall, selon qui il urge de dissoudre l'Assemblée nationale. Restons à l'hémicycle avec cette déclaration de politique générale attendue du Premier Ils vont saisir le Premier ministre, mais c'est à lui de décider. Et pour Cher Omar Sy de l'opposition, une déclaration de politique générale est essentielle avant le débat d'orientation budgétaire prévu, je vous le rappelle, samedi 29 juin. Restons avec le passage de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale avec le quotidien qui affiche à sa une Yewi censure la DPG. Cette DPG ne peut pas se tenir en l'état actuel selon Aïb Dafé. Il parle de falsification du document en y rajoutant des dispositions qui n'ont pas fait l'objet de révision. Yehui exonte tout simplement Ousmane Sonko. Cela, là, s'en est convaincu. Le confrère qui rappelle que le Premier ministre Ousmane Sonko devrait faire sa déclaration de politique générale en début juillet, soit trois mois après sa nomination. Mais Ousmane Sonko, qui n'a plus remis les pieds à l'Assemblée nationale depuis la levée de son immunité parlementaire, dont l'affaire Suite Beauté en 2021, ne semble pas être dans la disposition de sacrifier à cet exercice. En tout cas, les députés du groupe parlementaire Yewi Askanui, dont la majorité et membre de son parti politique passif Les Patriotes, ont déjà vendu la mèche. Et le confrère de s'interroger de quoi Ousmane Sonko a-t-il peur Sonko jouera en différé, souligne Réumi Quotidien, qui revient en détail sur les précisions apportées par le groupe parlementaire Iwi Askanui. Il indiquait que la polémique autour du délai pour la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre ne s'estompe pas. Et l'info se propose de revenir sur les marges de manœuvre de Sonko depuis 2000, cinq des dix premiers ministres qui ont sacrifié à la tradition de la déclaration de politique générale l'ont fait au-delà du délai de 90 jours. Et le confrère de rappeler que la DPG est un rituel républicain et un moment d'échange intense entre l'exécutif et le législatif sur les orientations et financement des politiques publiques. Et selon Adi Mergan Kanouté de Beno Bokoyakar, le premier ministre Ousmane Sonko est un ancien collègue et excellent parlementaire. Ousmane Sonko, nous le savons tous ne manque pas de courage et n'a pas peur de faire face aux députés que nous sommes. Pourquoi tout ce débat stérile ne peut s'empêcher de s'interroger Adji Mergan Kanouté de la coalition Benno Bokoyaka, au moment où les nouvelles politiques industrielles et budgétaires ont été passées au peigne fin lors du Conseil des ministres. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a exposé au gouvernement sa vision en matière de conduite budgétaire et le nouveau programme national de restructuration et de réhabilitation du tissu industriel. Le président Bassirou Diomaye Faye dessine les contours d'après le soleil. Il lasse de revenir en détail sur les plans de Diomaye pour reconstruire la souveraineté économique avec le projet de loi de transformation du secteur industriel, le recensement des entreprises, mais également la supervision des zones économiques spéciales. Diomaye engage son gouvernement, renseigne Sud Quotidien. Reparlons de la marche de Ouaga avec Dakar qui évite le malaise, renseigne le quotidien. qui revient sur les précisions de la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Hier, dans un communiqué, elle précise aucun dommage n'a été noté au niveau de l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso lors du sit organisé par des membres de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne du Burkina Faso pour remettre à l'ambassadeur une copie de la lettre de protestation adressée au coordonnateur d'Amnesty Burkina, Yassine Fall tempère dans les colonnes du soleil et calme le jeu dans Bosby le jour, qui, tout comme Sud Quotidien, nous fait part de cette bonne nouvelle. L'athlétisme sénégalais continue de briller sur la scène internationale. Après Chertigan Diouf et lui François Mendy, Salissar a été sacré champion d'Afrique du triple saut des 23e championnats d'Afrique qui se déroulent à Douala au Cameroun. La spécialiste du saut en longueur s'est imposée devant sa grande rivale africaine avec un bond de 14,6 mètres. Salissar offre ainsi au Sénégal sa troisième médaille d'or. Salissar qui est tout simplement la nouvelle reine du triple d'après Stade le quotidien du sport, qui s'intéresse également à l'Euro et affiche à sa une ce tableau de la mort pour quatre favoris, notamment l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Portugal. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.